diwaanu Wakaam euh, démb euh, ci guddi gi lakk-lakk nag bu metti moom moo fa daal di xew euh, ba benn ku jigéen ñàkk ci bakkanam keneen koo xam ne am na ay gaañu gaañu yu metti ñu daal di koy rawale fa li nga xam ni moom mooy ci hôpital ñi nga xam ni ñoom ñooy yeewoo fii ci ancienne piste bi ñëwaat nañ ci lakk bile ak mettiwaay bi ak li nga xam ni moom lañ ci ñàkk ci alal. lakk bi moom nu mu demee moom garaaw na trop. wax dëgg fa yàlla xale góor yi waaw dimbali nañ nit yi waaye xam nga lu yàlla dogal kenn mënu si dara lakk bi si suuf fale la commencé si benn néeg mu lakk di yéeg di yéeg waaye si kaw bu muy yéeg am nañu yeew woon ñu bëri dimbali nit yi waaye xam nga lu yàlla dogal moom kenn mënu si dara ñu war a des des nañ ñu war a gaañu gaañu nañ ñu war a génn génn nañ gis nga bagage su kenn génnul waaye sant yàlla bu baax lu war a def rek yàlla moo koy dogal ñun daal lii moom wax dëgg fa yàlla doy na waar torop sax. génn àdduna moom xaw ma ñaata at la am de. du meer rek soxna si la waaw. moom kese moo ñëw dëkk fii nii ñu xamante ak moom fii muy fóot xamuñu ay mbokkam muy fóot di fayeeku macha ñun ñëpp moo ñu doon fóotal topp liggéeyam amul benn problème waaye lakk-lakk bu mu yégee dégg naa mu ngi yuuxu yuuxu yu sax si biir yuuxu mu doon yuuxu buntam feesoon na del ay xale yu góor. yàq nañ ba sonn waaye xam nga rek lu yàlla dogal kenn mënu si dara waaye dëgg-dëgg moom ñëpp moom lañ doon dimbali ndax xam nañ moom kese moo fi nekk te amul doole. ndax ñun lakk bi moo ñu yee ñun ñëpp ndax balaa ñoo xam lakk na fekk jàpp na néegi yëpp mënuñu ko woon sauver wax dëgg yàlla ndax jàppoon na buntoom bi ba pare amuñu fu xale yu góor yi jaar pour daal néeg bi néeg bi jàpp na waaw loolu moo tax. ñu mun a dimbali ñu dimbali ñu fii ku ne ak sa doom li nga sol tëddee loolu nga génnee kenn génneewul dara sonn nañ torox nañ ndax soo gisee lii moom mooy nit yi dañoo torox ku toroxul rek du dëkk fi waaw sonn nañ dëgg-dëgg tay tay lakk na amuñu fu ñu dem suñu defaraatu fii amuñu fu ñu dem ku nekk li nga for fii nga am xaalis booy ndekkee sax xam nga doy na waar dëgg-dëgg moom ñaaw na. ah dëkk bi métti nam la bu ñu ñun tamit duñu dëkk ci li ñoo yorul moo ta ñu ñëw dëkk ci moo tax rek loolu rek la suñu loxo moo jotul suñu ginnaaw moo tax ñu ñëw dëkk ci waaye suñu loxo bu jotoon suñu ginnaaw du ñu indi suñu njaboot yi di leen dëkk ci lii ba lii lii di ñu dal fii fii ci ancienne piste bi nag am na ñoo xam ni dañu fii sax daan seen doole nekk ay mécanicien ñoom nag lakk bile coûté na leen lu bare bari ndax ay millions ñàkk nañ ko ci ñoom nag ñi ngi woo ñi nga xam ne ñoom ñooy nguur gi ñu jël ay mesures ci fi li nga xam ni moom mooy ancienne piste bi ndax ñi ngi wax ni lii di lakk du fii gëc daanaka sakk ñetti weer li nga xam ni moom mooy seeni bagage lakk ba jeex ta ñun moom dañuy liggéey mooñ feen liggéey rek la ñuy def quoi mais am na ñoo xamante ni xam nga ñu nekk fii ay affaire saleté moo leen fi indi ñii ay gaz tux xam nga ay baraag yi nekk fii nii yëpp la ñu war a éliminer loolu mooy créer lakk bi à chaque fois fii nii bi mu lakkee fan yii passé yàggul vite fait ñu defaat fi ay baraag et tout ça mooy loolu noonu fii daal moom ah en plus xam am na tamit ku fi ku fi dee xam te tamit bakkan tamit du lu ndaw quoi maanaam baraag yeeg yi ñu fiy tukkat yeeg naankatu sàngara yeeg yooyu noonu di créer ay fii yooyu lañ war a éliminer fii nii parce que ñun moom xam moo ñu moo ñu moo ñu la ñuy def suñu yoon newul si lu bon wala xam nga di def ay genre affaire yoo xam ne mooy loolu waaw suñu sañoon daal ah waaw nguur gi jàppale ñu si loolu noonu quoi yenn baraag yi ñu fiy def xam nga yenn problème chaque jour fii nga gis fii ay xeex xam nga booy fii la ñuy toog chaque jour di police des fois daf fiy ñëw xam nga am jàpp ay booy xam ay trois jours ngay toog gisaa leen si biir piste bi doo comprendre mooy loolu noonu ñoom ñoo ñu war a mun jàppale ci loolu xam nga ay affaire quoi chaque jour nga gis fii nii ñuy xeex booy di jamante fii nii lu nekk ngay gis mooy lool noonu te doo si mun dara waa piste bi tamit ñoo war a mànkoo doon benn xam ñëpp bañ baraag yi di nekk fii nii affaire yooyu noonu xam nga tey ji nii lii neexul nga ñëw gaar fii sa oto war ko liggéey gaan xëy suba ñëw fekk oto yi lakk ba jeex tàkk wala say bagage doo gis dara loolu dafa métti te am na borom oto bu fekkente ne gëmuñu yàlla mën na la si indil problème xam nga bu dee amoo loo ko fayee tamit da ngay sonn rek waaw suñ sañoon daal bàyyi nguur gi jàppaleñ ci loolu quoi baraag yi fi nekk ak lépp ñu éliminer ko dara bañu fi amati xam nga bu fekkente ne moom fii liggéeykat yi kase fi nekk di liggéey benn problème du fi am te benn tàkk-tàkk du fi am suñ sañoon daal gars yi jàppaleñu ci loolu quoi parce que ñun liggéey lañ am liggéey lañ xam liggéey ci jàmm yeewu ci jàmm nelaw ci jàmm loolu rek la waa ancienne piste euh, di ñaan ñi nga xam ni ñoom ñooy nguur gi ñu ñëw jëlee fa bépp samba booy boo xam ni mi ngi fa ndax ñoom jàpp nañ ni ñooñu ñoom ñooy indi jéye yi foofu